Let me video. Diop Kouba la ñëw na Diop Kouba la ñëw na Ama Baldé la ko indi Ama Baldé kuy def lu baax Baldé da koy wax xam nga li yombul de ay madaani mana ay booli bool ay meewi meew ay suukari suukar ay kolegi di kolegi ay siti ay njordi njordi ay lacciri lacciri moo baax dégg nga noonu la rafetee Aïda nuyu naa la. merci ci invitation bi kontaan naa ku la invité ku jërë invité man day man day mu invité ma damay ñëw ñàkk ma invité damay ñëw man boole xaw ma lu ci ne loolu jaaxal na ma trop Wala po ulit yung mga parang. beneen may nit quoi. dëkk bu amul loolu am Dakar de. ah oto ah, ñu xoolal oto bi dina dem. ñu xoolal oto bi bañoon na sànq de lii daa fees. oto lekk ay pom ay raisin ay poisson te du gazon de. jàmbaar nga macha allah. sans compter pour moi c'est ça la vraie richesse voilà la vraie richesse c'est ça sans compter pour moi c'est ça la vraie richesse voilà la vraie richesse c'est ça sans compter amul yaaf ñu naan ko duy ba mu fees. ah. lii moom mënul xew. waaw jom ko tey gis nga loo mos a gis say. ñëw leen di ngeen ñëw de les bienvenus. te dafa propre ah. yéen a yéen a ceeb yaa ngi mel ne ay daa. Bote kay na ma ko def ma tuddee ko. il est mignon il est canon. Hello. waaw 17 beeg noonu. waaw 17 beeg noonu. bu doxee nawet 17 baa ngi nii. bu baax ci doon ani boobu 17 baa ngi. waaw 17 beeg noonu. waaw 17 beeg noonu. bu doxee nawet 17 baa ngi nii. bu baax ci doon ani boobu 17 baa ngi. waaw 17 beeg noonu. waaw 17 beeg noonu. bu doxee nawet 17 baa ngi nii. bu baax ci doon ani boobu 17 baa ngi. am na ku joxe ndox joxe saabu ak mesquite bi. ñu ñëwee saabu ku joxe ndox dina joxe biskit dina joxe dina joxe saabu. yaa mën a joxe benn ba joxe ay muraake. lii mooy saabu yi day tudd deux jours propre. taalibe yi fu ne deux jours sango. il est élégant. moo tax sëriñ si ah àjjuma la yaa xam ne àjjuma la yaa xam ne day jàng yi. damay jógee di ñëw Dakar day xaw a sori xanaa xam naa fi moom xam naa fi moom naa fi am téere rek. yaa ngi woyaan bi. Ah. un peu sa beauté quand même. Eh, <laughs> non mais elle est belle quand même d'intérieur comme d'extérieur.

barke yonent bi

Mbéthio yaa ko defar balaa gi may defar balaa gi may defar xol yi nañu noonu daje mbégum baram dama naan sa ngeen nit di Sëriñ Saliou boobu gis na gis bu taxaw te man waral ma fi du mun di laaye tey bu ma raw mooy nit di Sëriñ Saliou boobu gis na gis bu taxaw te man waral ma fi du mun di laaye tey bu ma raw mooy nit di Sëriñ Saliou boobu gis na gis bu taxaw te man waral ma fi du mun di laaye tey bu ma raw mooy Thank you.